Souza. waaw Birago. salon baa ngi nii sa kër la. ah Birago kër gi rafet na de. Hmm. ah macha allah kër gi rafet na. loolu dina ma waaye kañ daa fi si nag. heure bu la neexee rek. da nga may bàyyi ma nekk si samay réglage réglé ko ba mu naaj. soob laa indi dugal la ci biir kër lu may neex lay doon. man kay ci yow rek laa nekk. lu lay neex ci loolu laay dox kër gi moom mi ngi mel ni néeg soo ko tabaxee ba pare il faut nga def ci làmp moy li leral te ya war leral keur gi. ay ah, lolou lu koy fay nak lu neex neex mari xana xanaa bëgg la rek di bëgg mu yok bëgg la xana man tam di la rek. mais xaaral ma dem wat lu sedd ñëw tek fi ñu bëggee man ak yow. papa jaru ko. tok di jàkkaarloo ni ak yow daf ma neex. Ah. waaw parce que fuñu joggé ni hmm. lu ñu naan rek doyna na. Ah, tok rek di jàkkaarloo ak yow rek. man mom buma ma ak yow duma xif duma mar alul forna gis nga bi a jëm li mom lu kay fay bi mais dege wa papa yow mhm. sama anniversaire bi mba yang kay paré oui hmm, ma gâteau bi sax c'est spécial Souza mu taxaw birago taxaw ci wet gi ñu bind ci Souza et Birago ay anniversaire bobu dañ kay anniversaire rek bu spécial bu wacc yow kay ku sa xarit bu ñëwee mhm. bu gisé nga anniversaire ba paré mom mhm. bësu juddom lay effacé dama ko jéral dag ma ko jéral té gis nga kër gi la lay wax ni danga fi wara a daagu def ko salaamaaleykum alaykum salaam ngeen def ñoo ngi fi alhamdulilah comme ni ma la ko waxé won légui feulé na lé man na fa dem su mekk nga maase ma biraa ba dégguma la dé lo wax dama la ñew indi fi pour nga maase ma kay do ma sama yar. Drago man duma sa maaseel est-ce que yang may dégg do ma indi sa kër gi ba pare gis ki tok nga ragal ko ngay naan sa maaseel sonna si yow la pardon yow la kan. man nga la yow la. waaw. ak Ouzé. Hmm. yow tok sama biir kër sama diggu salon laajatuma la yow la kan nga may laaj man yow man la kan. biraagu biraagu danga am jabar di ma ko nëbb danga am jabar di ma ko nëbb waaye biraagu nag góor yi mel ni yow ñoo yàq société bi soxna si na nga baal ma kii man ak moom dund nañ 6 mois. 6 mois 6 mois di ma fayal sama école. Mm-hmm. man ak moom ñuy dund lu ne. di dem fu ne. takatabe mm-hmm. kii rek. mais lenn moom dinaa la ko wax balaa may génn fii sama quatre mille. yi ma ma dig pour sama anniversaire dag ma koy jox ba ma liiral la maf ci biir dëkk bi yow mbour gi do def ci jarati dara. dara na def. xam dama lay may rek. même bu dag may may digé bor la sama yon nekk ci wa jeex na jeex na ci si ki mo indir ko maf. jeex na amu bu ko defé defee jaratu fi dara xolal xol ma sutural ma. sino koñ bi duma fi jaar dara amul problème man ngay sutural moom sutural loko dé man ngay sutural kon baxna xam nga moom dafa tabé néna day maye. Ah. du 80000 la 80 000 problème jigen nga may jigen loolu duñu boole am quatre-vingt-dix mille lañu ne dix ci des def ko sa transport nga dem ñibbi maa la ko may lii rek mooy am jàmm am waa na la lew et puis sama numéro téléphone rek efface ko sa téléphone boobu set bu ma woote yow foo jëlee xaalis bi ngay joxe du yow yaa ma yónni woon nga ne su ma sama kër yaay na dem poste retiré la xaalis comme que fekk na situation bi demé ni ma jox ko ko rek. xaalis bi du sa xaalis. ah. du sa xaalis. moko mom du yaama ko yoni won du da nga doon joxe 90 vingt dix ma joxel la ko rek jamm na ñoy li rek la wax de te gis nga nag boo jógee ravitaillement bi wara am ci kër gi yëpp bu ci dara manki na nga dem nga wuti lepp fekkaat ma fi ci bir kër gi bu bëgguma nag wax lu bari. ce mă de fătu mă nimă? Ha ha ha ha!